problème bu ma am mooy démba gars yi def nañ liggéey bu set jàpp ne góor jigéen bi càppaneen lu bonam ba xam ne càppaneen lu bonam génnee ñuuxiti taatam ba mu ñuux ay bagage ba mu fees ak tàngaay bu métti bi waaye man li suma problème mooy lu tax góor jigéen yi firi Gambia yeneen góor jigéen yi firiwuñ Gambia lu tax ñoom am rek ñoom Danso ñoom Pambay firi Gambia te am soso Pambay ñoo ñëpp kenn nekku ci Gambia te ñuy ñëw Gambia di fa def lu leen neex te laaxatuñ démb rek gis naa am soso si benn baaf de xale mu nga toog si digg lal bi jigéeni Gambia yaa ngi ko wër yal na yàlla may yéen ñu koy support noonu góor jigéen doomi góor jigéen léegi man loolu mooy sama pol léegi police yooyu noonu taxawoon di dóor na ah, Sierra Leone bi mais lu tax yéen mënu naa jàpp om soso lu tax mën naa jàpp ñoom Pambay te ñoom yéen ñëpp leen na leen ay góor jigéen leen ñoom nëbbuñ ko fen mais nag nañ feya nag man su politique mom neen ray sen tay ñom ñep dégg maa si kex cànn gi nak ma ngi gis ñu ngeen bind di jema a wax waxi lo yow kex bu ñu yàpp yow nga melni ku lekut fukki ata juroom ñaar nuun bu ñu yàpp bu ñu yàpp nga naa ngi waxi yow góor jigéen nga yow waxi lo lo wax sarab dayam yow go jigéen ñu wara ñep sen day nga am loy wax fi di binda di sa binda yu gudda yoy na bu ñu kex kex yow da nga judd fekko sen sa bay di promo go jigéen bu ñu yàpp yow bu ñu yow sa maas gi moo tax sax Khalifa Sall mënut a gagné te Khalifa Sall nit ku baax la sa maas gi moo ta mënut a lifi lifi taay la xam nga ñëw nga fi def sa diir yo dem tëdd benn place naa dañ la kidnap te kenn kidnappul la bu ñuy yàpp keks nekkal nit def sa bopp nit